Bienvenue sur Salam Vision. maa nga jëm Parcelles Assainies unité 21 en fas terrain basket bi dem seeti Ahmadou Bassirou Ndiaye Ngéraan borom bi may ko lool ci xam-xam xam-xam boobu nag mu ci dimbali nit ñi mu daal di leen defaral ñetti ubbeeku yoo xam ni da nga koy sangoo maanaam mu di ay saabu yoo xam ni am na ñetti niveau boo xam ni saabu bu njëkk bi day def ci yow ubbeeku ba noppi def ci yow protection ndax yéen ñëpp soxla ngeen protection ñaareel bi dafa lay ubbi ba noppi indil la bi nag mooy niveau bi ñetteelu saabu bi ubbeeku bu leer nañ ba noppi nag àndandoog li nga xam ni liy dugg sa loxo day des ci sa loxo di toog ci sa loxo kon ahmadu Bassirou Ndiaye li la yàlla may jërëjëf ci ni nga ko bokkeeg jaam yi rawatina nag ñi nga xam ni dañoo am problème mu njaboot nga xam ni nag ay góor lañu am nañu kàttan waaye mënuñu am doom mu dimbali leen ndax léeg-léeg góor ak jigéen dinañu nekk ci say duñu am doom ñu ne rek ku jigéen ki la fekk yow ku góor ki it daa war a faju kon ñëw leen seet si Ahmadou Bassirou Ndiaye mu jaarale leen ci produit boobu muy wax Nasirullah Nasirullah nag dina la traité bu baax yow ku góor ki nga xam ni koo jege rek di nga ca mën a am njaboot Ahmadou Bassirou Ndiaye Ngirane Parcelles Assainies unité 21 janoo ak terrain basket bi téléphone 76 589 93 67 wala 78 469 24 30. Coupe de mer qui est née au sol. Donc, à sa soutien à la patrie. mais en attendant il a pris la semelle euh, de dessous Bien défendu par le CDD. Et la défense de Manco, la défense de dégagée par son gardien de but du produit de grandeur. Thank you.

وجماعة الخلائق Nous demandons aux vétérans de l'AFC Alliance et de l'équipe de se déplacer les présidents ou bien les capitaines pour le commencement donné par l'Europe du Sénégal. L'Europe du Sénégal est récompensée à 100 000 francs, le ko dégg ki nga xamante ni moo di ak Manko ba léegi ñu ngi ci premier mi-temps bi nekkaguñ ci deuxième mi-temps bi yéen ko gis noonu te gis nañ fi mu ne taal gis yi Ahmed Aïdara gis yi ñoo xamante ni tey jii kenn du wax géejawaay te tuddoo leen. mu nekk ay ndaanaan yu mag a yoo xamante ni nekk ci membre de politique tey jii match bu rëy bi am fi te match bi tey jii di 0-0 premier mi-temps Manko ak Eco match bi tar na lool fi mu nekk nii 14 zones yaa ngi daw match yaa ngi noonu xeex bi di bari waaye yaakaar naa ne loolu moom du ñàkk ci match xam naa bu sa rek yéen a ko gis noonu góol bi génnee ko. góol bi génnee na ko góol bi génnee na ko yéen a ko gis noonu góol bi génnee na ko macha allah match bu neex la Eko Manko ko ci Eko ak Manko góol bi góol baa ngi téye bal bi teg na ko suuf góol baa ngi noonu di waaj a bal bi. yaakaar naa ne tey ji dara tey ji war sedd tey fii si stade Amadou Barry góol bi dégagé na bal bi tey ji di samedi tombeek ci weeru olof xaw ma nag nan la ngay waxee ci weeru tubaab xanaa di dellu di gënaat amaat jàmm rek di gën yokkaat jàmm daal ci réew mii di wax ne yàlla na ñëpp am jàmm di wax ne yàlla na ñëpp am jàmm macha allah. yéen a ngi tëgg yooyu tëgg yi di la jox ay bàkku Balla Gaye la jox ay bàkku mbër waaye tey stade bi te dafa ala dawme te bu ñu nee dawme tey boo xoolee stade bi xoolee tribune ni mu mel macha allah lii lañ damm ci nawetaan. alaaji Mansour Mbaye lii lan na mu ci nawetaan alaas Becaye Mbaye suñu làmb lii lan na mu ci esat esat dafa wadi fees waaye mango ak écho lii dafa nekk match boo xam ne match derby la match derby la ba léegi ñu ngi ci premier mi-temps bi yeggaguñ ci deuxième mita bi ba léegi yéen a ko gis noonu macha mu nekk lu mag mag bay loolu jël na coupe bi mu nekk loo xamante ni gars yi noonu di ko teg lu naaj mu nekk lu rafet yéen a ko gisoon ñu ngi doon daan dem seen supporters yi macha allah. na ku bi jug na bi jug na jug na jug. kanam manko yaa ngi noonu ñoom ñoo jël 2-0 ñoom ñoo jël seen coupe bi noonu gis nga ko noonu di bagante ak di ambiance ba léegi gars yaa ngi noonu di bëgg. yéen a ko gis noonu ñoom ñoo dóor seen 2-0 gàddu noonu seen coupe bu leen neexee ndam moom boo ko amee bu leen neexee daagu yéen ko gis noonu ñoom ñoo dóor 2-0 yoo seen coupe dimbalee gars yi yaakaar naa ne joueurs yi moom xam naa ne fañ dëkk moom gëm naa ne moom macha allah yéen a ko gis noonu.